na Aminata Touré ji nga xam ne moom la nekkee loolee la war a bàyyi maanaam manipulation ci manipulation ci la Aminata Touré nekkee ndax nag département yi coalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal am na si lu toll ci cinquante cinq député maanaam juróom fukki député ak juróoma bu dee nag lu jëm ci liste proportionnelle am nañ si lu toll ci vingt huit député maanaam ñaar fukk ak juróom-ñetti député Yewwi ak Wallu yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Khalifa Ababacar Sall nee na mbir mi leer na élection yi leer na waaye nag ñun daal dinañu am suñu fula ak suñu fayda ba nga xam ne maanaam ak sàcc fi am ak njuuj njaaj loolee du ñu nangu mu am fi maanaam jaay doole jël élection yi bëgg koo ngardaajoo bëgg koo falsifier loolee munuñu ko nangu tey ñu ko nangu ëllëg te duñu ko seetaan kaddu yu Khalifa Ababacar Sall la yéen kaay gi di 24 heures nee na résultat yi nga xam ne moo tukkee ci élection législative yi jamono ji kenn laam-laamee ne maanaam bu doon ab sëy la diggante Macky Sall ak askanu Sénégal ñu ne sëy ba jeex na maanaam jamono ji mën nañu jàpp ne mbëggeel moom amatul mbëggeel amatul maanaam mbëggeel amatul diggante Macky Sall ak askanu Sénégal yéene kaay gi de libération ñu koy fekk fa Khalifa Ababacar Sall nee na mbir mi leer na jamono ji ñun dañoo gañe li nga xam ne mooy élection yi ba tey ci gi Lamine Thiam bu PDS Lamine na Macky Sall ci a xam xëy di ñu xibaar naan ñu Aïda Mbodj ak dóor yi nga xamante ni dóor na ko waa Benno Bokk Yaakaar ci département bu Bambey loolee nag firndeel na na Aïda Mbodj jamono ji maanaam ba léegi moo nekk gayndeeg Bambey la Lion du Baol yéene kaay gi di évidence nee ministre Mor mi nga xam xamante ni mooy maire bu Nangalma dañu ko dóor ba muy bëgg a dee moom Mor Ngom maanaam dañu koo gañee yéen a kaay gi ne ne Ibrahima Khalil Fall mi nga xam ne moo jiite woon li si benn bokk yaakaar moom tim ci kër Samba Kane dañ ko faa dóor dóor yu métte métte métte yéen a kaay gi di enquête ak Sud Quotidien nee na guerre des chiffres ba léegi diggante benn bokk yaakaar ak wàllu Sénégal kenn ku nekk yaa ngi wax na yaa gañee Aminata Touré bi nee na carte gi leer na victoire la bokk yaakaar ama yéen a kaay gi di la Soleil nee na suspense bi ba léegi ma ngi dox waaye fi nga xam ne mooy mbuur Mbuur ak Kaolack ak Kolda foofee nag benn bokk yaakaar moo ko mujjee gañe Le Soleil mooy wax waaye ba tey ci biir journal bii de Le Soleil nee na Saint-Louis ak yeewi gañe nañu ko nee na yeewi wàllu gañe nañu ko nee na yeewi wàllu gañe nañu ko nee na Tivaouane yeewi wàllu gañe nañ ko gi de ko de jeexee duñu xibaar naan ñu élection yi nii nga xam ne moom la ko gisee contentieux électoral yi dina ci bëri lool maanaam jër mbir mi yóbbu ko fa mbaxana doonee député la ñu am te nag du fi ama ñi nga xam ne nag ñooy waa coalition wàllu Sénégal ñoom ñoo ngi woo askanu Sénégal ñu daal di taxaw résister mobiliser waa wàllu ñoo ko wax yéen a kaay gi de la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu transhumant yi dañu leen a sanctionné yi ndax dafa bëri woon ñoo xam ne dañoo transhumé woon dem fekk Macky Sall ci mel ni Ahmed Fall Braya ku ci mel ni Mayoro Faye Bamba Fall Yankhoba Diattara Cheikh Bara Dolly Amadou Diarra a kaay gi de réew mi ñu bi nga xam ne Benno yaakaar am na ko ci diwaanu Pikine maanaam métti na awaña lool awaña mi nga xam ne moo nekkoon tedd li si benn bokk yaakaar ci diwaanu Pikine maanaam bi ñu leen fa dóoree dóor yi métti na fa jooy ba maara day taali moom awaña waaye nag responsable yi nga xam ne ñoo dëkk Pikine ñoom nag tuumaal nañ Macky Sall ndax nee nañu Macky Sall nag defet bi nga xam ne bennoo am na ko ci diwaanu Pikine Macky Sall la ndax investiture yi nga xam ne def na ko dara baaxu ci yéen kaay gi na ay coalition Yewwi Wallu waaye tamit ñetteelu mandat résultat yi ni mu tukkee tax na Macky na ko waaye tamit transhumance yi dañoo lajj dañoo échec yéen a kaay gi di source a xëy di ñu xibaar naan ñu waa Idrissa Seck moom ban njariñ la Idrissa Seck amal Macky Sall loolee mooy laaj bi ndax élection locale yi nga xam ne moom la ñu na idi dañ ko gañe ci diwaanu Thiès élection législative yi Idrissa Seck dañ koo gañe ci diwaanu Thiès idi ban njariñ la amal Macky Sall yéen di Libération nee na diwaanu Thiès ñu bare bare la ñu fa tegoon waaye téewul dañu leen a gañe dañu leen di dóor ba maara day tale ndax Thiès ministre Yankhoba Diattara Siré Dia ma ñëpp dañ leen a gagné yéen kaay gi di vox publique yi xibaar naan bëri woon na ay localité yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar ay punkal la fa teg ay punkal la fa teg waaye teewul dañu leen a dóor ba maara day tale nga xam ne mooy Médina xoolal punkal yi daje woon Médina teewul dañu leen a dóor ba maara day nga xam ne ñoo daje woon parcelle teewul dañu leen a dóor ba maara day tale xoolal punkal yi nga xam ne ñoo daje woon Thiès dañ leen a dóor ba maara day tale xoolal punkal yi nga xam ne ñoo daje woon géeja waaye dañu leen a door ba maara day tale xoolal punkal yi nga xam ne ñoo daje woon Louga dañu leen a door ba maara day tale xoolal punkal yi nga xam ne ñoo daje woon Kolda dañu leen a door ba maara day tale xoolal punkal yi nga xam ne ñoo daje woon Kaolack commune dañu leen a door ba maara day tale yéene kaay gi di l'Observateur xëy fësal ci xëtam mu njëkk la victoire du peuple yéene kaay gi di Les Échos nee na kër kilifa diina yëpp Benno Bokk Yaakaar daf koo ñàkk waa Macky moom lu mu def kilifa diina yi ndax fi nga xam ne mooy Touba Macky Sall daf koo ñàkk Tiwaawoon Macky Sall daf koo ñàkk Thiénaba Macky Sall ko koo ñàkk Kaolack Macky Sall daf koo ñàkk commune Daaru Musi Macky Sall daf ko ñàkk Cambérène Macky Sall daf koo ñàkk journal bii de la mandat nee na Macky Sall li ko sànq ci élection yi mooy lu jëm ci ñetteelu mandat ak borom ñaari tur yi ak ñi nga xam ne dem nañ ba jàpp ne réew mi yoon amutu fee yéen a kaay gi di réew mi ko di jee bàyyi mbir moomu daal di xëy di ñu xibaar naa ñu nag ca diwaanu Vélingara am na fab électricien boo xam ne dafa daal di xaru waaye tamit ci Dakar ci Sicap Baobab foofee tamit na fa ab boo xam ne dañu koo fekk ci